بسم الله الرحمن الرحيم حمدا حمدا لمن أعانني فصمت وساق لي رزقا به أفطرت فلك وحدك إلهي سمت ثم بقدرتك قد أفطرت فليغفرا جميع ما قدمت يا غافر الذنب وما أخرت وكلما أسررت أو أعلنت وكلما علمت أو جهلت أنت إلهي لا إله إلا أنت قني عذابك المجلى يوم القيامة بجاه المصطفى وصليا عليه ثم شربا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi mbokki sëriñ daara yi mbokki taalibe yi waa daara ji noo ngi nuyu ñëpp di leen siyaara ci weer wu màgg wu barkeel wii di siyaara weer wi di ko siyaara ñaari bayit yoo xam ne sama turandoo dan na ko siyaaree yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi la zilta dayfan كريما زائرا ابدا مكرما بقرى الطاعات والسدد ñoo ngi siyaara weer wu màgg wii weer wu tedd wii weer wi nga xam ne bu ñëwee indi ay mbégte si ñu ko taataan tëbbuñu ay leer tëbbuñu ay xam-xam tëbbuñu ay xéewal sa ña ko taataan weer wi nga xam ne moom sama turandoo fonkoon na ko lool ba koy siyaaree bayit yii ñu wax ni su ma saane ñëw danga koy gis bu jublu see ñu ne weer wi jege si na muy muuño ko ree di génn di bàggante mel ne kuy tiitaru lépp ndax kontaan si weer wi bëgg ñëw noonu la ko daan gasandoo kon ñu nit ñuy kontaan bu baax a baax ci weer bi di ko wax loolu mu ko wax lépp jaarale ko ci làmmiñam ngir mu gën a jot di ko wax ahlan wa sahlan wa tarxiban di leen ci yaaru bu baax a baax ci weer wi di leen ci balu ak di jiital ci nuyoo yi ak siyaara yi suñu mbokk suñu mbokkum sëriñ daara sëriñ Aafiya Buso di suñu xarit ñu yàgg lool di ko nuyu jaarale suñu nuyoo si moom si kilifa yi gox bi yëpp muy sëriñ daara yi muy imaam yi délégué de quartier yi ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu si weer wi di leen ziar waaye di leen ndokkeel tamit si bis bii nga xam ne bisub alquranul karim la mu mel ni olamaawul balaaxa li ñuy bàyyi xel di ko wax muqtadal xaal te muy waxin wa di bërëb ba di jamono ja sëriñ Aafiya bàyyi na ko xel bu baax a baax ndax ku jël bisub alxuraan jagleel ko weeru koor def ko sa yaakaar naa def nga la nga war a def def nga la yàlla ndax weer wii mooy weeram chahru ramadan allazi unsila fihi alquran kon weer wii mooy weeram kon bu si wootee bisu mel nii ngir alxuraan def na la yàlla téere bii nga xam ne Cheikh Ahmed Bamba Xadimu Rasul moom la waxoon ni mooy léppam téere bii mooy léppam alxuraan dëkkaale na ak yàlla ci alxuraan jaawartu bil furqaani rabbi al muin alxuraan it ci gàttal nee na mooy léppam qiraatuha kanzi wa jaahi وعزتي ونلت بها كوني لدى الله ذا صدقي fa alxuraan mooy léppam mu digal ñu ko yi dénk ñu ko jàppaloo ñu ko bu baax a baax min murid kullu muridin bii yaluusu fal widim tilawatan li xayri dikrin xadd rusin mu dénk ñu alxuraan bu baax a baax jàppaloo ñu ko si biir ak si biti kon ñoo ngi leen di ndokkeel tamit si bis bii nga xam ne bisu alxuraanul karim la mu mel ni tey su fekkee jaaxle jaaxle dafa am te yaatu lool jukko yi yàqu ñàkk yar si biir kër yi si mbedd yi si jàngukaay yi mbon gi tasaaroo loolu lépp rek indi na jaaxle jaaxle ba tomb bu nekk danañ ko indi si jotaay yu mel nii ngir waxtaane ko waaye lépp fekk na la ko waral mooy dëdd gun dëdd alquranul karim dañ koo dëdd bu wér-wér dëdd googu moo indi lii lépp Cheikhul Xadim sama turandoo dafa waxoon ni dëdd alquranul karim wan ko ginnaaw di ko tuddoo si ay làmmiñ rek waaye bàyyi woo xel ni leetar la bu ñu la yónnee nga war ko xam ngir dund ko waaye nga koy tuddoo sa làmmiñ rek mu ne dëddu alxuraan moom yi dana waral juróom-ñaar dana waral juróom-ñaar juróom-ñaar yooyu yëpp nag tey jii maanaam gis nañ ko fii mu wax ko it si waxin wu yéeme nga xam ne baxru bi nga xamante ni sama classe gi duñ ko laal suñ dee way ndax dañu ne moo gën a jafe si baxru ya ndax darbu yu bari yaa tax muy baxru basiir baxru boobu sa la ko wayee ak way wu yéeme mustafilun failun mustafilun failun mustafilun failun mustafilun failun kooku mooy baxru basiir baxru la boo xam ne yombul man mi ko songoon fan yii kuréel ga nekk ndar di ma wayloo ay bayit ci sin sàmbay ma ne xaaral ma jël baxru basiir eh na ma sa yàggee yombul moom nag si la way juróom-ñaar yooyu wax ni dëdd alxuraan dana indi juróom-ñaar ne zanbun bakkaar yu bari loolu yaakaar naa dootul lu ñuy gestoog naan ma nga nee bakkaar yu bari yi moom ñëpp teg nañ ci seen bët zanbun dëdd alxuraan dana waral ak rëy mu ne wa kibrun rëy la wax waaye rek kàddu yoo wax nit rek léegi lu tuut tuut rek maa di góob ay lexam fees del rëy kenn nangoo tuta dégg dëgg kenn ku nekk darajaam bëggul ku sa fell dara la borom daal ya waxoon ni fatinin isa ma siima jaahuhu xasfan wa ida yusaamu ilaahuhu lam yaxrudi mu ne cëy man de nit jaaxal na ma nit mooy koo xam ne dara jaam loo si laal mu mer mu naqari ko lool te luñ mën a teg yàlla du ko tax a mer du ko tax a naqarlu mu ne nit ñi la mel loolu nag mooy rëy loolu la suñu tubaab ne wa kibrun ak rëy jàpp ni yàgg nit ñi nangu woo dëkk teg sa bopp si kaw ñëpp xeeb ñëpp tey loolu rek ngay gis mu ne wa israarun ala laibi mu ne dëddu alquranul karim dana tax nuur si am fo boobu yéen yaakaar naa ñëpp teg nañ si seen bët fo mi damaa jëndale sax fagg waaye li mu jëfandikoo muy isra mooy nuur gi ñu si nuur waaw sëgg si fo guddi ak bëccëg suba ngoon waxtu wu nekk fo duñ si tay xeetu fo mu nekk wa israarun ala laibi xobbun li dunia mu ne dëddu adduna it dana jur maanaam bëgg adduna dëddu alquranul karim bokk na si yi muy jur bëgg adduna tey mébét yi di jeex ay mébét yeeg te mébét yëpp nag mébéti tey rek lu mel ne loolu sëriñ Afia di mébét muy daara jooxante nii loolu mébét yi ëllëg la kay mébét taxawal daara bi toll noonu nga xam ne njariñ la lépp xam nañu du ko fekkee waaye jullit ñi continuer di ko jariñoo ndax lan ndax wal axiratu xayrun xam ni àllaaxira moo gën mu di ko préparé waaye bébé di àdduna rek tey ngay gis àdduna rek lépp àdduna ci la ñuy xëy di si gont ci la ñuy xëy di si gont àdduna rek ictimaadun lil xaliqaat mu ne ba tey maanaam dëddu dëddu dëddu alquranul karim bokk na si yu ñuy jur fàtte yàlla yaakaar mbindeef yi jël sa lépp rek teg ko maanaam si nit ñi fàtte yàlla ba tey bokk na si yu ñuy jur kasaaka dufu yaqinin wa huwa saadisuha dëddu alquranul karim mooy jur ñàkk am kóolute sa borom ak ëllëg ndeysaan benn jullit lañ na ma ko far yee ñu ma sëñ bi nga yaakaar ne maanaam sa dëgg-dëgg dekki am na gis nga dox bu yaqin mi ngi noonu nga yaakaar ni dekki am na te kat ab jullit la nee na dëddu alxuraan a ngoog mooy def loolu si yow nga dem bay sikki sàkk maanaam dekkeek la sa ginnaaw dekki wa sabbaxuha bi taksir ibtidaaat yi mu ne juróom-ñaareel bi mooy biddaa yu bari yi dëddu alxuraan daf koy indi kon dëddu alxuraan dafay indi maanaam juróom-ñaar yi lii nag su amee faaw ak yàqute am moo indi yàqute gi juróom-ñaar yi nga xam ne ñàkk nañ ko ci lañ taxaw di ko dund moo indi yàqute gi ba tax ñëpp jaaxle ñëpp a jaaxle kat fi mu toll nii ki la ko wax ak ki la ko waxul ñëpp a jaaxle ñëpp a tiit timit ñëpp tiit nañ ndax jukko yi ñu gis façon bi ñu gis tax na ñëpp tiit kon tom bi ñu tànn tey te mooy solo si nga xam ne yarub islaam yarub diine am na ko solo dafa am benn bindkatu arab daf si waxoon lu gàtt loo xam ne tënk na waxtaan bi lépp dafa ne al insaanu bila diinin yakaadu yakuunu waxshan daariyan aw xayawaanan aw saytaanan rajiima dafa ne woon nit su fekkee yaruñ ko si diinay islaam moom nit kookee dana soppiku kenn si ñett yi nit su fekkee yaruñ ko si diinay islaam dana soppiku kenn ci ñett yi nga ne ko ban ak ban mu ne wax sam daariya dana nekk aw nekk ment di pàdd rek boobu gis nañ ko looy dégg rendi na ko daggate na cër ya lakk na jëmm ja dóor na ko jaasi ja yooyu rek ngay dégg wax sam daariya nekk aw nekk ment rek di pàdd rek tey nit ñi foofu la ñenn ñi toll ndax lan ndax yaruñ leen si diine léegi sëpp ku nañ ay nañ ment waaye nag boo xoolee jëmm ji jëmmi nit ngay gis waaye fekk doom na nañ ment bu yàgg mu ne aw xayawaanan mbaa mu nekk bàyyi ma mu ne nit su fekkee yaruñ ko si diine dafay nekk bàyyi ma jëmmi nit ngay gis waaye bu jëfee mbaa mu wax rek nga ne accam boobu it gis nañ ko tey ay nit yoo xam ne ñoo yilif seen bopp nangootuñ yàlla yilif leen nangootuñ yonent bi yilif leen lu leen neex wax lu leen neex def lu leen neex dem tey loolu moo am nekk ay bàyyi muy sotti booy xool jëmm yi nag ay jëmmi nit ngay gis la arab ba waxoon ne abu nayya inna min ar-rijaali bahimatun fi surati rajuli samii albasir mu ne sama doom man day waaru naa tey ngay gis ay nit ñoo xam ne bàyyi ma lañ bàyyi ma waaye nag melakaanu nit dañuy yore kuy dégg ka gis te fekk déggatuñ gisatuñ ay bàyyi ma lañ bu yàgg mooy aw xayawaanan mu ne fekk da ngaa ñàkk yarub diine ñetteel bi mooy nga nekk seytaane rajiim yàq rek wóotu iblis yàqam ci si kaw suuf di yàq rek yàq rek am na ñoo xam ne dañuy xëy suba ba ngoon li ñuy dox lépp ak yàq la dara lu si yàlla gërëm amul wuutu nañ seytaane mu ne nit rek yaroo ko si diine faaw rek ñett yi mu nekk si benn njaay àll woo xam ne day fàdd rek wala bàyyi ma wala seytaane rajim takat ñeent yi nga xam ne moom la yonent bi waxoon ni su ngeen ko moytandikoo dugg àjjana daa mel ni tey jii ñun def na wax nañu su ngeen ko defee tàbbi àjjana ñeent ndaa waxoon ni man istanaba arbaan daxala aljanna ñeent ku ko wattandiko rek dugg àjjana ban addima bul tuur sa dereetu mbokk bul rey bul boom addima tey dégg nga rey yi ni mu toll dégg ngeen ko si rajo bi suñ bor bee rek maanaam sandal dégg nga pël ba nam def maanaam taalibe ba ak jaasi ja ndeysaan vingt quatre la amoon mu caw ko jaasi ja mu dee comme bàyyi ma ak ban al amwal ak alal yi sa alali mbokk na nga sa maandu da ngay dégg rek pharmacien sàngam dañ koo toj jël nañ garab ya jël nañ fa nangam si xaalis magasin sàngam kër sàngam yooyu rek ngay dégg alal yi ak ban alfuruja ak pëy yi tey njaalo gis nga ni mu tasaaroo njaalo rek njaalo rek njaalo rek kenn wattandikootul kenn sàmmatul sam pëy ndeysaan dégg ngeen mbokk moomu si kees li ko dala fan yee xam nga loolu ñaaw na nekk kees di liggéey am fa mission ne yooyu ma ngay njaaloo suñ boroom natt ko maanaam si kaw jigéen dem tiimoon di sëy ak moom mu dee si kaw jigéen ji xam nga xalaatu ko woon xalaat musta foog loolu te lu mën a dal kenn ku nekk la ku nekk war koo bàyyi xel ndax faatu xamoo fañ lay ñëwee ma nga tiim ndaw sa yàlla nattu ko mu faatu ci kaw ndaw si ñu ne ndaw si doo mën demee noonu ñu dem jëli Japon ñu ñëw ñi Costa mu siiw ba xam ndaw si da ko rey wala lu ko rey ñu naan tension balaag leela ndeysaan mu am njaboot amoon ay soxna wala boobu gàcc ak la koy xaar ëllëg alfuruj waaw alfuruj njaalo rek njaalo ñeenteel bi al asriba naan bu metti mi sàngara si yéen di bokkoon ni ku wattandi ko sàngara waaye tey mel ni ñun dañu ne ku naan sàngara dugg àjjana bañ wutal ñu sax ay mbuusi cent franc waaw boo amee cent franc dugg mel ni kuy naan sa ndox ci bitig yi jënd sa mbuusu cent franc naan day sa day Sénégal ku am sa cent franc naan ñeent yi ñu waxoon nañu bu ngeen ko wattandikoo dugg àjjana dafa mel ni safaan ba la ñu wax su ngeen ko defee dugg àjjana tey ñeent yi ñoo fi yàlla ñàkk yarub diine tax tey lu neex waaye def kenn faaleetul kenn ba tax ñu nekk nit ñi yées ci nit ñi Luqmaanul Hakim dañ koo laaj ne ko ban nit moo gën a yées ci nit ñi mu ne allazi laa yubaali an yaraahu nnaasu musiia mu ne nit bi yées ci nit ñi mooy nit boo xam ne lu ñaaw li muy def faalewu ci kenn lu ñaaw li muy wax faalewu ci kenn mu ne nit boobu mooy nit bi yées ci nit ñi ñun na tey foofu lañ toll lu neex waaye def lu neex may waaye wax kenn farewul kenn ci li ngay waxal li ngay def kenn amatul mbañu rus te bu njëkk ñun Sénégal mënuñu woon noonu bu njëkk dañoo nekkoon ay jullit nekk ay góor tey ñu nekk ay yéefar nekk ay jàmm wala yasubillah tey foofu lañ mujj lépp lan ndax lan sàggan ne yarub diine yaratuñ nit ñi ci diine yonent bi daa waxoon ni sallallahu alayhi wa sallam laa tazaalu ummati bi xayrin maadaama saqiruha yuwaqiru kabiraha wa kabiruha yarxamu saqiraha sama xeer wi dun dañ mukk di nekk ci jàmm dun dañ mukk di nekk ci naataange dun dañ mukk di nekk ci xéewal dun dañ mukk di nekk ci yërmande fii ak mag ñi ñu ngi wekk ñu ngi yërëm ndaw ñi ndaw ñi wekk mag ñi te loolu mooy yar ak teggin kon fii rek yarut diine mi ngi fi yërmande yiw jàmm naataange xéewal xeet bi du ndàggoo ak moom tey nag yooyu yëpp ñàkk nañ ko ndax lan ndax yar boobu la ñàkk ndaw ñi wegatuñ mag ñi kenn amatul yaay kenn amatul papa ndeysaan kenn amatul mag kenn amatul morom mag ñi it loola tax na yërëmatuñ ndaw ñi ñàkk yërmande daal di judd te yonte bi ne woon na ku dul yërëme ku dul yërëm ñi si suuf yàlla mi si kaw du la yërëm gis nga yàlla yërëmatuñu moo tax lu nekk ngay jëf lu nekk ay am lépp ndax lan ndax yarub ñàkk yarub diine lu ne mën naa am moo tax ñu xam tiit ndax lu nekk mën naa xew te suñ borom toujours mi nga wane misaal yi dégg ngeen bu yàggul yoo ñaari xale yu jigéen yooyu sa Louga doon looti sa teen ba ndeysaan dem ba jub teen ba suñ borom ne suuf wan na leen ni ñu taxawee jub teen bi suuf wan na leen ñuy dugg si biir ay nit di leen xool ñuy dugg si biir suuf ba jeex takk ndeysaan sàkkoor ñoo ne dañuy gas ngir génne leen dégg ngeen ko si Louga bu yàggul gas ba sonn gisuñ leen sax xamuñ fan lañ jaar ñu ne mente ngi biir suuf si moo tax man su may dox maa ngi tiit naan waaw maa yàlla du wax suuf mu wan na ma fii nag ngay gis koo xam ne ku fàtte yàlla la suy dox maanaa di ngand ngand di funki funki lii fekk innaka lan taxriqa al arda wa lan tabluqa al jibala tuula mënoo ngand ngand lu ba gën a yaatu suuf si wala nga gën a gudd doj yi waaye nit ñi ñàkk nañ xel léegi amatuñu xalaat ndeysaan moo tax ñu bari di leen bett yu bari di leen bett waaye yàlla ku mat a bàyyi xel la te jamono bi mi ngi wane yu bari yu bari mi ngi koy wane mat naa bàyyi xel lool mu mel ni saa bi day bëgg a dem te mel na ni duggaguñ si thème bi sax dëgg-dëgg xanaa dañ koy tënk rek ndax programme bee daal di te quatre heures rek dañu war a jeexal ñun moo tax bàyyi léegi ñu koy jéggal ndax xëy na nañ ko nose woon dootu ko mënoon nosewatu ndax waxtu wi moo dem ba pare waxtu wee jeex a pare faaw ñu tënk ko waaye yarub diine mooy li nga xam ne daal moo mën a waajal nit ba biiram ak bitéem lépp yiw waaye lépp yiw biiram ak bitéem nit ñu bari dañuy bëgg yar nit ki ci waajal kawam rek islam xamul boobu islam daa gis ni jëmm ju ne ñaari jëmm la ndeysaan borom daali ya yàlla na ko yàlla yokk leer moom lay junj maanaam si fil muqimil muqaaj li olof di wax maanaam ji gi jaaga nit ku nekk ñaari nit nga da nga boole jëmm ju feeñ ak jëmm ju nëbbu te defar gi si kaw rek jagarut jëse biir jëse biir sax moo war a njëkk a jag nit dafa am ruu ruu googu nekk jëmm di jëmm joo xam ne leer la waaye mu am xel moom jëmm jooju xel mi war di feebar comme sa xel bii nekk sa jëmm ji ngay gis di jirmu bi ni muy feebaree nga naan nañ seeti dalal xel ak nan dem faan ak ni xel mii di feebare ñu soxla ñu faj ko xel mëne sa biir ruuga it noonu lay feebaree day dof ruu am xol xol boobu yi di feebar ni fi cardiologue yi nekkee di toppatoo mbirum xol bii xol bee noonu lay feebaree moom it ndeysaan nit umpale loolu lépp dégg nga xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim qisaaba xam nga ne boobu bu ko waxee du bëri ndax bu la nee wax la absaarihim qisaaba te yaa ngi gis nga xam ne am na yeneen bëri yu muy wax su ne am na benn muuraay bu taratal muuraay boo xam ne benn façon mu meel muuraay la boo xam ne moom rek moo ko xam ma muure ko maanaam say bët ba tax na nangootoo gis dëgg bët yooyu muy bët yi nekk maanaam si ruu nopp ya sax si ruu xol ba sa ruu kon nit ñu war a préparer biiram ak bitim buñ ko dee yar fexe ba ay xalaatam di ànd ak xalaati yàlla fexe ba ay bëgg-bëggam di ànd ak bëgg-bëggi yàlla fexe ba ak yëngoom akuk daram di ànd ak yëngoog suñu borom akuk daram léppam dëppoog ngërëmal yàlla islam ba fa lay tàmbalee ab yaram moo tax ba waaje dikkee si sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de damaa am doom soxna si moo mucc ma la doon laaj ba xam kañ laa koy tàmbalee yar moom xale bi mu ne ko ah yar ko wees na mu ne ko wees xanaa déggoo di ma la wax dama leen soxna si mucc na ngéntee guñ sax ma bëgg a xam kañ lañ ko commencé yar mu ne ko wees na ndax yar sa doom mi ngi tàmbalee si tànnal ko yaay fa la tàmbalee tànnal ko yaay kon wees na ginnaaw am nga tànn da wut nga yaay yow ba yaay jamono am doom kay wees na ndax tànnal ko yaay si la tàmbalee woon ndeysaan kon ñoom noonu la ñuy yare dañuy tàmbalee si biir di defar biti gi jag waaye kaw gu rafet nii rek kaw gu rafet nii rek jukoy laa féq fexe ba kaw gi baax nii rek soo ko xoolee ni jullit bi te su la jekkoo yaquluna bi afwaahihim maa laysa fi qulubihim jukoy laa féq yar bu njëkk mel ni ñi ko siqoon dañoo bari te tey jii ñu bari bàyyi seen wàll bu njëkk yar waajur yi dañ see bokkoon yaay ak bàyyi jàngalekat yi moo xam kasa daara jala wala kasa école ba la jàngalekat yi bu njëkk mbedd mi sax day yar ndax lan ndax dañoo gëmoon ni njaboot bi yëpp ñoo ko bokk suñu njaboot lañ su jagee ñëpp la jagal su yàqul ñëpp la yàqul bu njëkk loolu lañ gëmoon waaye tey daanaka ñi ko fi desee ku su néew mooy ñi ñuy tuddee ay sëriñ daara waajur yi moom bàyyi nañ bu yàgg seen wàll mbedd yi moom moom waxatuma ko moom mbedd yi moom yàqu na yàqaale lu bari xaaliban li gën a bari sa ña sa école yi di jàngale xamuñ sax luy yaru diine bay yar yaruwuñ sax bay yar kon tey ñu ko fi desee ku su néew néew néew mooy sëriñ daara yi ñoo ko fi desee tey as néew te waajur yi kër yonent bi ne woon na waajur bu nekk sàmm nga te ëllëg daan nga laaj nan nga sàmmee woon sa njaboot waruñu woon a bàyyi waru nañoo jàpp bu baax a baax suñ borom waxoon leen xuu anfusakum wa ahlikum naara fexe leen ba bu leen dugg sawara yéen waajur yi waaye fexe leen ba seenu njaboot buñ dugg sawara ndeysaan doom ak nim neexee nga bëgg ko seetaan rek muy dugg sawara muy dugg sawara nii rek te yàlla waxoon na la ko fexeel ba yow waajur wi bul dugg sawara waaye fexeel ba sa doom yi buñ dugg sawara waaye yar jafe na tey tey jii yar jafe na sëriñ Afiya daal def li ko war li ko war mooy lan mooy fàttalee woote bis fàttale nit ñi wut tomb boo xam ne am na solo ndax lan ndax fa lamma nasu ma zukiru bihi anjayna allazina yanhawna ani suu yàlla nee na ba sama mbugal ma ñëwee damaa seet ña daan fàttalee ñoom ma musal leen ci mbugal ma ñan daan fàttali ñu lànk nag ñoo ne daa mbugal moo tax moom def na li ko war faaw mu fàttalee ndax looloo ko war waaye tey yar jafe na lool la arab ba waxoon moo tax mu jafee arab ba daa waxoon ni xale yi tey yërëm naa leen nga la xale yi tey nga ne ko ah mu ne bu njëkk xar yi xar yi dañoo amoon ay sàmmkat sàmmkat yi di aar xar yi ba till yi duñ leen jege mu ne tey nag ñu toll ci jamono boo xam te nii sàmmkat yooyee ñooy till yi kon xar yi fan lañ jëm tey loolu la laaj lay sàmm mu ne xar ya fi nekkoon ak sàmmkat yi sàmm yi di sàmm xar yi di leen aar ci till yi ñu dem ba jamono sàmm yi soppi ko ay till ñoom jiital xar yi tey moom ñu dal tey tey mag ñi sax yàlla na sopp mag ñi sax tey ndax yaru nañ suñ ko sañee wax ndax jub nañ suñ ko sañee wax ndax xam nañ suñ ko sañee wax la arif billahi bi wax ni man nit rek ma yéem nit mi nga xam ne saa yu xëyee di wut lu yokk addunaam lépp lu am si adduna xeeb na ko waaye diine moom lu mu si xam lu mu tur tur rek doy na ko lu tuuti ngay gis ku xëy ne maa ngi xëy ngir yokk sama diine yokk sama diine sama kër ga ma jëndoon almadi fan yii si laa nekk di ko liggéey maa ngi bëgg sax maanaam kër maanaam boo di Saint bi xam nga foofu dégg naa fiix na maanaam mburu climat bi ni mu neexee fu mu amoon kër adduna rek lu yokk adduna bi rek suba ngoon guddeeg bëccëg mi ngi xëy si li yokk addunaam diine mag lu mu si am lu mu tuut tuut moom doy na nee nit noonu la mel benn xale dafa maa laaj bëgg a démb mu ne sëriñ de fan yii sama papa moo ñuy jiite naafile waaye li muy def man laaj naa ko mu ne man noonu lañ ko ko jàngalee ma ne ko sa papa dan lay def mu ne moom nee na naafile kenn du jàng fatiha xulu wallahu da ngay wax ñetti yoon lakkaa ba leer ndeysaan ma ne ko ku ko jàngal xam nga loolu mooy ay tappale kenn jàngalu ko fi mu toll nii waaye ba nga moo ko xale bi rek nga xam ne ne xaaya dama ne xaaral te xale yi léegi yi xaaya lañ nii rek waaye suñu xel yi moo tax waa ji mu góorgóorluwul mu ne xul wallaahu rek rakka ba ne ñetti yoon xul wallaahu waaye amul jàng fatiha si naafila est-ce que mokkal na ko sax ba sàggame te xale bi moom mi ngi jàng daara mokkal na fatiha moom est-ce que moom mokkal na ko moo tax waaye julli tamit war nañu seelaat seen bopp surtout jigéen ñi jigéen ñi suñ baaxee lépp baax waaye bi ko xa doom yi di gërëm dafa am bàyyi bu baax la doom yi def délégation ñëw ne ko papa sant nañ la lool ndax dama ñoo yar jàngal ñu ba tey fu nekk ñu mën faa teew xam nañ suñu diine yaru nañ am nañ suñu teraanga te lépp yaa ñu teg si yoon ba mu ne waaw loolu de moo mujj sama digganteeg yéen cant gu njëkk gi mooy ngeen sant ma bi ma leen tànnalee yaay ju mel nii waaw kay lépp kon si yaay ji la yaay dañ koy tànn mu ne seen yaay jii ma leen tànnal mooy sant gu njëkk gi moo tax lii lépp mën a am yaay dafa am solo xam nga nit ñi ku jaaxle daw seeti sëriñ sëriñ daara ba fan yi am benn jigéen jàpp si loxo doomam indi ba si man ne ma sëriñ daara gis nga sama doom ji boo si jógul du baax ma ne ko xam mu ne faaw nga dimbale ma si ndax yar geeg ñàkk teggin geeg ñàkk dégg ndigal geeg bon gi muy jël yoonu mbar gi daal jaaxal na ma xam naa nag moom yor ko si daara ji dong du doy waaye faaw nga wut si ay ñaan def si ay ñaan seeni yooyu faaw nga def ko si ndax kii daal ni ma ko gisee wax ba àggal xale bi dama sëriñ bu si ñaan de boo si ñaanee du nangu ma ne ko ah su ma si ñaanee du nangu samay jëfandikoo alxuraan ñaan si alxuraan mu ne ma du nangu xam naa li ma la wax ma ne ko ah lu tax nga wax loolu mu ne gis nga sama yaay mii sama kër bàyyi dara lu baax dara lu baax liggéeyu ko fa liggéeyu sama kër bàyyi dara lu baax sama yaay mii moo tax faaw nii laa mën a mel faaw ma mel nii waaw dara lu baax liggéeyu ko sama kër baax faaw ma mel nii boo si ñaanee du nangu nii laay mel ndax moo ko liggéey xam nga lu gàcce la musal man nettali ko benn xaritam mu ne ma néexul ba néexul waaye xarit xarit li mu wax dëgg la ni mu soxale woon papaam yilif kër gi rek nanguwul xale yi kenn ku leen jaare li ñu wax soo waxee mu ne duñ dem daara ja nangam ak nangam xale bi li mu wax dëgg la de man sama xarit la xam naa ko waaye dañu doom ji wax dëgg la ndeysaan tey foofu lañ doon lu mët a bàyyi xel loolu la olof yi olof yi di wax naan xaw ma ku yor sam kuy ba ba màgg balaa mbëgg kenn mooy loolu man su ma déggee ñu naan xale yi tey yi ñuy nekk magi ëllëg yi ma ne ah est ce que magi tey yi du nekkaat magi ëllëg yi bu ñu nee xale yi tey yi ñooy nekk magi ëllëg ma ne est ce que magi tey yi du nekkaat magi ëllëg parce que xale yi tey yi si mag ñi la ñuy xool rek ginnaaw mag ñi dañuy raasaat xale yi di xool boo léegi xale yooyu bu màggee ñu fiy nekkat mag yi démb yore ñoo fiy nekkat faw ñu seetaat suñ bopp faw ñu delluwaat ci alxuraanul karim faw ñu delluwaat ci xam-xam xale yëpp ay jirim lañ tey ay jirim ndeysaan maam Alhaji Malick Sy mbokkum Serigne Touba ma moo ko waxoon mu ne xale yëpp ay jirim lañ laysa al yatimu allazi xad maata waaliduhu inna al yatima yatimu al ilmi wal adabi moom Alhaji Malick mu ne jirim da ñàkk waajur waaye ñàkk xam-xam ak yar mooy jirim boo ñàkkee xam-xam ñàkk yar rek jirim nga tey jii nag loolu moom it daal ñàkk xam-xam ñàkk yar moo tax benn xam naa xel mu tibbi la jàng mën nañ ko tuddee ab docteur benn docteur la mu ne dafa dafa visite xel bi seet leen def ay analyse def ay rajo seet xel bi ñu ne waa dina seetee après loo gis mu ne inni nadartu ila suubi waaye falam ajid kal jahli daan lissuubi mubidi ndeysaan mu ne seet naa xeer bi def naa ay rajo def naa ay analyse waaye li ma gis mooy jàngoro bi nga xam ne moo alal xeet yépp mooy ñàkk xam-xamu diine ñàkk xam-xamu diine mooy jàngoro ji nga xam ne moo alal xeet wi yëpp moo leen alal kon woote gi lépp mooy ñu delluwaat ci daara yi delluwaat ci alquranul karim ndax alquran yahdi lillati hiya aqwam baatu bi hidaaya bu dee ulamaul mantiq ñoom ñu toppatoo mbirum baat dañuy wax ne hidaaya dafa bëri ay maana dafa am lu sëriñ aafiya man ak lu mu si mënut al hidaaya bi maana al irsaad boobu moo indi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim booboo ko indi waaye al hidaaya bi maana dilaala bi maana dilaala moo indi sax wa innaka la tahdi waaye bi maana al irsaad moo indi innaka laa tahdi man ahbabt suñu waxee al hidaaya gindi dafa am gindi boo xam ne tegtal lañ bëgg a wax tegtal sëriñ Abiya li man mooy jëm nit ñi tegtal leen mbaaxu yàlla gi tegtal leen njubug yàlla gi wan leen yoon wi loolu la man waaye mënut a jubal kenn de loolu mooy innaka laa tahdi mënut a jubal kenn jubal yàllaa ko man kon faw ñuy def yu mel nii di tegtal nit ñi ah lii kat moo baax lii kat moo bon delluwaay leen ci alxuraan ndax jafe-jafe yi mel ni kon ñeenti minutes moo ñu jeex dese ñu ñu tëj rek ni ñu ko waxee woon waxtu yi moo xat ne nosoon nañ ko lool sax waaye waxtu wee xat nag dañ nekk ci koor te jotaay bi yàgg na waaye ñu gën a góorgóorluwaat ndax dañoo nekk si jamono boo xam ne li yonent bi waxoon ni yaati ala nnaasi zamanun alxaabidu ala diinihi kalxaabidi ala aljamra foofu lañ toll jamono ngi ñëw téye sa diine dana tàng jël ba mel ni téye aw xal nëbu xal ni mu tànge téye sa diine moo koy raw foofu lañ toll tey kon ñu jeexale rek ak benn aaya alquranul karim ci biir aaya boobu ñu bàyyi xel bu baax a baax dégg nga fam benn aaya rek suñu borom bu bëgg ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ndax daf ñu see dig maanaam yu rëy a rëy mu bëggoon koo tëjee dafa ne woon inna alladina yatluuna kitaaballahi moom suñu borom mu ne ñi nga xam ne ñooy jàng sama téere bii di alquran ñi nga xam ne ñooy jàngulu ñooy jàngulu sama téere bii di alxuraan ñi nga xam ne ñooy jàngale sama téere bii di alxuraan inna lasina yatluuna kitaab allah ñun nag suñu nee jàng alxuraan rek nga dégg ko ne am na benn neuf bi waaye am na tukki benn neuf bi ngeen am na tarante bi waaw boobu sax baax na waaw jàng alxuraan boobu sax baax na waaye alxuraan lammiñ da koo war a jàng xol jàng ko xel jàng ko cër jàng ko yàlla boobu la soxla te boobu nag moo ñu manqué moo tax lépp yàqu ba léegi dara dafa doogul da ngay jàng alxuraan sa lammiñ mooy tudd baat yi waaye fekk na sa xol bi nga koy jàng ngir bëgg alxuraan ak bëgg li alxuraan bëgg ndeysaan boobu xol baa ngay jàng bëgg alxuraan bëgg li alxuraan bëgg xel mi di ko jàng te mooy xalaat yi chet yàlla li mu wax fii waaye waaye tey si téye di jàng rek xam na sax dan la yàlla wax fii te su fekkoon bés bu nekk nga wut sa benn heure donte juróomi minute la sëriñ daara ba nga dendal nga dem sukk si kanamam ne ko benn aaya rek laa bëgg si alxuraan nga wax ma yàlla lan la si wax mu tekkil la ko nga jóg dem ba subaa ci loolu sax baax na danga xam dara si alxuraan ndax alxuraan leetar la sëriñ moon mbay siise ndeysaan yal na yàlla yokkal yaram sëriñ daara bu di xam-xam ba gis nga bi ñu ko indilee saboon tax yi bu Serigne Touba dafa téye jàng sab on tax yi fi mu tàmbalee ba mu jeex ñëpp a ngi toog mu war koy xotti ñu jaaxle moom de xotti na sab on tax yi mu ne waaw leetar la leetar nag boo ko jàngee ba xam lañ la sa wax mën nga ko xotti te dem nag def li ñu la wax su nga alxuraan boo ko jàngee ba àgg leetar la bu la yàlla yónnee bi nga ko jàngee sa làmmiñ ba mu jeex da ngay jóg nag nga topp biir ko nga dund ko nag nga pratiquer ko nag ci say ciir ciir yi nañ jàng alxuraan ñoom it ciir yi dañoo war a jàng alxuraan ndeysaan bët yi jàng na si alxuraan qul lil mu'minina yaquddu min absarihim làmmiñ bee ko wax noppi dégg ko bët yi ñoom it war koo jàng bët ne ah yàlla kat nee na naa wàcc ci sama gis lu ma wërta xool bu ma ko xool xel xalaat daan ne ah yàlla na kat yàlla ma jox bët xañ ko samay moroom te gënuma leen ndeysaan boo dafay tuuti de gis bu yatam di yalwaan bët ya du gis xamul nu soxnaam mel xamul nu doomam mel xamul nu këram mel yow yàlla jox la ay bët te ñooñu gënoo leen kon bu la nee sa bët yi sàmm ko ba bu si xool loo wët a xool soo dee gor su goree nga war koo déggal fexe ba sàmm say bët sa nopp yi loolu la war a jàng si alxuraan gémmiñ gi loolu la war a jàng si alxuraan pëy mi loolu la war a jàng si alxuraan am na koo xam ne talu njaalo bu talaata ñu yóbbu ko ñu di def jalis ndeysaan balaa saw ba mu génn li si biiram rek ñu def ko ay raakol ndeysaan metti loolu mu dem ba dee gënal ko dund ndeysaan ñu koy def ay raakool rek naan ngir mu saw ngir mu nangam ak nangam mu sonn lool yow yàlla may la nga mën a jóg dugg sa salle de bain ndànk saw ni nga ko bëggee doo si am benn jafe-jafe saw mi génn génn bi nga ko gën a gënal ba nga féex nga génn ndànk dem xoola teraanga jooju xoola sutura soosu ki la ko defal amoo dara loo koy fayee lu dul ne yaa ngi njaaloo gore woo gore woo moo tax suñu waxee ñaan lii dara léegi kenn xamu ko xam nañ ko di ñoo ko teg suñu bopp yaa ayuha nnaasu innama baxyukum ala anfusikum yàlla newoon na gis nga seen meew gii ngeen beew seen bopp rek ngeen koy def beew ngeen de fàtte ngeen ma de fetteerlu ngeen de fàtte ngeen wér ak jàmm ji ma leen jox waaye seen bopp rek ngeen koy def tey jii Sénégal yu bari yu amoon ñu ngi ko commencé ñàkk réewum jàmm la tey ñu ngi ko commencé ñàkk wér gi yaram gi ñu ngi ko commencé ñàkk te li si gën a garaaw bu doon sax al maradu waaye as saqam la fi yàlla indi Sénégal as saqam am nga arab nee na al marad mooy feebar boo xam ne xam nañ li koy saafara waaye saqam mooy bi nga xam ne xamuñ sax lan moo koy saafara dem si docteur yi di bàggante rek xamuñ lu la dal bi ñuy bind di la jox rek ngay jënd tey nga dem si docteur bi ëllëg si docteur bi ba xëy xëy ne këlañ kay rek day sax moo tax faw ñu dellu si daara yi faw ñu dellu si alxuraan inna lazina yatluuna kitaaballahi foofu laa tolloon faw ñu dellu si alxuraan gëm lim ñuy wax gis nga ki bàyyi xel dee ak la sa ginnaaw dee yu bari du ko def nit ñaa ngi sikki sàkk naan ndax dekki am na waaye néew booba sa iraq néew ba sa iraq xaw ma ngeen koo liir am na benn journal bi jógee Tunis yi bu ko bindoon bi ma ko yé bi ma ko liiree damaa yéemu néew ba sa iraq mu ne iraq dañ fa doon denc di suul benn néew xam nga iraq daa mel ni Nouadhibou man yàgg naa Nouadhibou dafa bëri ay doj ndeysaan nee na bi njëkkee di suul néew bi di ko defal kër gi mooy bàmmeel bi am fu foq nee na bi mu foqee ko doon defar bàmmeel bi sëgg xool seen jëmm joo xam ne mi ngi sol yére yoo xam ne comme yére yu or te yëg kaamilu alxuraanul karim di jàng bi mu gisee jëmm ji jëmm ji ne ko yowmal xiyaam dafa agsi mu ne ko dee ak see guddee dafa am kuddee ku ñuy suul nii mu ne ko kon defaraatal ma sama bitig boobu foq foq boobu ndeysaan xam nga ne kooku weddi wut yowmal xiyaam rek moom ma nga sa bar sax toog di xaar yowmal xiyaam kooku weddi wu ko ne ñun rek ñoo koy sikki sàkkaaka weddi du aku yaqin waaye kooku weddi wu ko moom faaw ñu jàngal alxuraan faaw ñu nekk ay jullit bañ a nekk ay yéefar waaye nekk ay jullit wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniya la alxuraan wax si aaya ba mu ne ñu gën a fonkaat julli julli aka mag asalaatu azamu al ibadat la yonent bi waxoon jaamu yàlla bi gën a màgg si jaamu yàlla yi mooy julli ndax ëmb gu mu ëmb si biiram lépp loo xam ne xeetu jaamu yàlla la tey nag ñu sàggane ko lool moom julli sàggane alxuraan am na koo xam ne boo ko waxee mu ne ah maa ngi julli waaye julli mooy fàttaliku yàlla rek te man fàttewuma yàlla ndeysaan dalika mablaghum min al ilmi foofu la toll am koo xam ne moom day xëy dang-dangi ba guddi mu ñëw daan na nag maanaam xaaral daal di boole maanaam julli yëpp jullee doo leen benn yoon am na koo xam ne moom noonu lay def julli suba teg si tisbaar tàkkusaan timis kee day sonn ko boobu yàlla bëggu ko waaqaamu salaata du boobu nañ julli si waxtu wa royal Serigne Touba si li ko julli jaraloon toog nañ njaay leen di attaaya jël baraade bi war a xel yi yëkkati ko ba si kaw war a xel yi jàkka ji ne allahu di nodd bi allahu ji jibee rek xarul mi àggale akbar dafa bàyyi baraada mu daanu mu daal di jóg sax moom noonu la fonki woon julli bu doon sama classe gi dañ maanaam ñu ne ah day soog a nodd rek waxtu bi day soog a jot xaar ma rey première bi àggale deuxième bi dafa gaaw dem julli ji bu bu ñu rëyatu bu ñu rëyatul ñooñu nan nan la ñuy baaxee xaw ñu delluwaat si ñooñu nañ meloon xaw ñu rëyatu yonent bi ak gaayam yu baax yooyu ngir mën a baax wa anfaqu mimma razaqnahum xam nga yàlla ku bëri yërmande la gis nga min googu ulamaaw naxwu moom la ñuy tudde maanaam min at-tabiidiyya lañ koy tuddee lay sax yàlla waxu la nga joxe lépp waaye defaree jëlal dara si li ma la wërsëgal nga joxe ko ngir man ñu bari nag jàpp ne ni joxe waru leen gis nga diggante min boobu ak maa bi lu am solo la ñu war koy bàyyi xel diggante min bi ak maa bi mimmaa razaqnaahum boobu xaw nga xoolaat naxwu bi xoolaat balaaxa bi si diggante min boobu ak maa bi xam ne yàlla li mu wax mooy kenn ku nekk la nga am mu tuut di lu bari loola mooy maa bi maa day loolu mim maa maa boobu mooy li nga am muy lu tuuti muy lu bari jël sa dara loolu mooy min bi jël si dara nga jox ma ko man yàlla yonent bi ne kii lépp du ab tooñkat te ñàkkut lu mu fayee yàlla miy lépp ngeen lebal ko si seen lu baax loolu du ab tooñkat ku ko lebal mu fay la te ñàkkul lu mu fayee kookoo neex a lebal ki jub di fay te am na lu mu fayee kooku moo neex a lebal kooku nag mooy yàlla kon war nañoo gëstuwaat daara yi bu baax a baax ndeysaan yenn saa yi rek ma laajte waa sëriñ Abe ba léegi fam nuyu woon di fay lu seet loola ba léegi fa la nekk ñu ne ma ba tey jii fa la nekk gën naan Dakar mi ngi bëgg man ñaari at waaye yenn saa yi rek ma laajte waaye si ñaari ba léegi fam lañ jàngalee noonu di fay lu seet yooyu ñu daan fay ndax bañ ko lijjëri ñoo ko daan ànd ba léegi fa fa la nekk ñu ne am nga dañoo dañoo far yokk location bu sax de am ngay ba léegi nii fi mu toll nii kay ba léegi jógegul foofa da ngay sax ruus ruus nit ku yor daara di génne résultat yi muy génne te mënugoo fexe ba am kër goo xam ne yaa ko moomal sa bopp wala këru alxuraan di fay location ba léegi nii ba pare ñu ne ay jullit lañ da ngay sax jaaxle te li ma si gën a doy waar mos naa si waxtaan ak soxna Ami Kebe yaayu daara ji ma ne ko waaw yéen seen daara ji yéen yéen say ma daal dégg nit ne jël naa fi engagement danaa joxe cinq tonnes kii ne danaa joxe nangami feer mu ne ma waxi neen sa mbooloo ma doo gis daal xoolal ma lii taxaw si digg mbooloo jël mi ko rek daara ji danaa si def cinq tonnes def naa cinq tonnes ciment kii ne maanaam deux cent kilos de fer joxe naa ko kenn ku nekk maanaam wax ñu jóge fa ñëpp ne sëñ ba lañ ko jox sa daara ja te fekk nekk waxi neen ndeysaan sama sëriñ ba sëriñ Fallilu Mbay moo ma jàngal alxuraan si la xulóobu nit xulóobu tàng ne ko danga maa tooñ ndax dañoo def benn ndaje si daaraam ndeysaan am ku jóg daan ne maanaam man ne sëriñ bi daara ji warlu naa fi ñaar fukki tonni ciment joxe benn numéro daan ne numéro kenkayri bi na ngeen waxoon kenkayri bi falaa jëm nii léegi saa ngeen ko bëggee jële ngeen jële ko ñu dem ba waaji ne bàyyiwu fi daara ñu woo ko fekk mu changé numéro loolu de moo am si daara yi daara suñu affaire ji liñ fi yàggee diggee ak man daara ji ba ma yàggee dégg projet bi ba léegi nii nekk pareegul ba léegi mi ngi si fayum location ci yàlla allahu akbar ak a ñaaw ak a rusulu ak a rusulu waaye mu toog di muñ rek jaayut ngorom jaayut diineem pourtant am na ñu bokkal jaay nañ seen ngor bu yàgg ña nga sa yeneen am ñoo xam ne jaay nañ seen diine bu yàgg ña nga sa yeneen am xaalis bu gaaw moom mu toog rek jëfandikoo la ko maam ji Sëriñ Tuubaa waxoon fukkul xalaalan fexeel ba lépp looy jëfandikoo na nekk lu lew yow Sëriñ Afiya mu toog rek muñ jàpp ñaamuram yenn saa yi mu taal otoom tis tis yi dugg foo xam ne waajur yi sax duñ ko yëg dem làqar bi loo xamante nii ñëw jox dongo yi loo xam ne man am na buñ si ànd ma gis ko wóor na ma ne lii du yëppam lii yëpp ay xale rek ma xale ko moom mu indi te waajur yi duñ yëg te kat waajur yi li ma si jaaxal mooy gis nga li ñuy joxee ku si néew si daara ji ni muy rëyee si ñoom ngeen baal ma ne ngeen baal waaye dafay rëy si ñoom koo si wax man ah sama doom dama koy fayal waaw nay def yàpp nay nangam ak nangam da ngay yaakaar ni yow si ni mu waxee weer wu dee ma ngay jox sëriñ ba deux cent mille francs te sax li mu bëgg lépp deux cent mille par weer mënu ko waaye tout sa muy joxe nga xam ne sëriñ daara bu moom la muy daj xare ya la muy fare daa am benn waajur fan yi damaa yor ñaari weer fayu ma ñëw ma woon ko sama facture ndox mu nekk soixante dix mille ñu ma i suñ bi lii ngay fay si ndox man sama kër maanaam quatre mille rek lay fay ma ne ko waa seen doom yi bu doon ma ne samay doom rek quatre mille lay fay waaye seen doom yi moo tax bu ngeen tegalee ay weer rek sama mu rus lay sàmm rus dan lay tegalee ay weer ay weer duñ la fay di la contrôler yenn saa yi sax nga génn doxi loo xam ne pour daara ji la ñu dëkki fekkuñ la fi ñu ne ah moom jàngariwul di taxawaayu rek dem naa fekkuma ko fa xamuñ kat loolu liggéeyam di ci te joxu la maanaam loo ko toogee. noonu la ñuy def te ku nekk yor nga njaboot sa kër gis nga xale ni mu naqalee yoon yenn saa yi ngis param de élève bu génn maanaam biir këram yuuxu soxna yi fan ngeen nekkoon lu ngeen di xoole ba xale yi daaneel télé bi lu tax ñu yàq loppee buntu bii douche bi lampe bi dafa lakk waaw sëriñ daara bu yooyu xale yi dañ koy si daara xale yi di yàq loke yi ci biir daara yi yow waajur bi yëgoo xale yi di lakk lamp yi nu leen neex lañ koy tàggat nu leen neex lañ koy faye nga di ko kaat sa kër maanaam bañ a lokk këram fii si daara ji xale yi di lakk lamp yi muy defar muy yàq xam nga xale loolu la xam ngay defar muy yàq ku ne xam nga ko sa kër ndax yow nga ay doom muy defar muy yàq lan koy joxo ku su néew mu koy boole booleeg ay ndimbalam ngir yor xale yi loola nga réer ko lool ba doo ko muñoon dara yàpp ko lool waaye li may faral di wax rek sëriñ daal bari joon ñàkk fayda yu bari si ñoom la man de sama daara boo déggee bëgg wax ma la ah yilifoo daara yilif laa ko yilif maay borom kat damaa fiy jàngale moom ngay sàtt yaa ngi nii da nga siy mënee wéy mënoo si wéy jëlee sa doom nga yóbbu feneen rek waaye dama wax li may def waaw mais topp si ginnaaw waajur yoo xam ne di daw daw koo xam ne waaye lépp dañ ngir bëri yërmande yërëm xale yi rek du sax waajur yi waaye ñoom ñoom seen affaire xale yi dañuy yërëm ak xam jamono ni mel ak yi mën a fëkkaate moo tax lu nekk ñu di ko muñ si waajur yi ngir xale yi rek ndeysaan xale yi rek waaye xale yi jar nañ ko nag xale yi jar nañ ko yàlla yi jar na ko nag yàlla yi jar na ko ndax yàlla dana leen fay de wér a wér waaye métti na nag li ñuy def sëriñ daara yi boo góorgóorloo ba jënd sa oto sax ñu ne ah ñu ngi nii am na xaalis bu paree suñ jógee fii suñu xaalis yi dañuy jënd seen oto mi ngi nii yor man maa xam yee benn kàddu ndeysaan te xamul sax ba ñu yéene moo tax mu jënd oto bi maa ngi fàttaliku suñu affaire mi bëgg a wut oto pour mën a dugub li ñu koy bayal pour daara ji mu mën koy transporter di ko indi moo gën a yomb fay gi. nga xam ne illa bi njëkk a tax mu wut oto maanaam loolu la yow nag boo gisee mu ne sa oto yoo romb la day sànn nga ne ah mi ngi nii am nañu xaalis sëriñ daal day ñooy oto yi rafet dina ko fekk ma nga yor oto boo xam ne pour ay bagage aaju nga mu soree fa aaju nekk jëli fa ab dund langar langar rek moom ñàkk tooy xipp maanaam fan yee maa ngi dajeeg moom Touba maanaam minuit mu ne taxaar la jëm si daara yi lu ne ñu wax ko ak Serigne Saliou tee ngaa fanaan ba suba mu ne xale ya loo wax mu ne xale ya te tax na ngi ak oto bi daj gi daj gi ñaqatooy xipp maanaam ñëw waajur yi yëguñ si tus bu ñuy nangu sa doom sax duñ seen doom sax duñ la ko yëgal yenn saa yi dañuy yem kër yi maa tabaski rek ñu tëjee xale bi nga wax ñu ne la bàyyi na xoola googu ñàkk kees moo tax faggalatuñu xale yi barke wulatuñu xale yi barke moo tax xale yi da ngay gis ku tës tës si maanaam wut wut ba sonn wut liggéey fu ne mu dugg fa du am dara ndax ay waajuram faggaluñ ko barke ña ko jàngal sax gërëmuñ ko ñaanal nañ ko moo tax war nañoo delloo si waat xel yi xam ne am na koo xam ne bu la ko yàlla joxee tiitar la am na ñu ko bëgg lool gis naa nuwaa dibu nuwaa dibu ay quartier yoo xam ne fan yi tijji naa fa daara moom mii buñ ko mënoon a am hay la hay la la duñ ko gëmee te la leen daara jaral ak xaalis bañ koy joxe si daara waaye mu tànn parcelle rek ñëw nekk ak yéen di leen dimbale si njaboot gi rek di leen dimbale si njaboot gi rek waaye gàcce ne saa yu liggéey rek fekk ko si barab bi ñu ne daal luye ba léegi loolu gàcce la moo tax parandee ne fii nañ soppiwaat doxin wi te xam ni daara ji seen daara njaboot gi seen njaboota sëriñ daara bi it yéen lay dimbale yéen la yoral seeni doom kon ngeen jàppale ko baax a baax si daara ji lu am solo la ak a neexoon rek ñu jaayante ko ba déwén rek ñu defar ay carte ne si ñaar fi ne ne conférence bi si daara ji bees ji la koy defee yàlla na ko yàlla sottale noonu ak a neexoon loolu déwén mu am waaye takat suñ ko jaayante woon rek mu am kon waajur yi nañ xoolaat ni ñuy defee kenn ku nekk loo man defal te bañ a taxawati di wax naan engagé naa cinq tonnes ak engagé naa cent cent kilo fer rek yooyu yëpp buñ ko waxati wax ko pare mel ni def nga ko te fekk defoo ko loolu yàq turu suñu affaire la yàq turu daara ji la yàq turu yi yaayi daara ji ak bàyyi daara ji la ndax day mel ni jot nañ ci fekk jotuñ dara kon nañ bàyyi loolu ku nekk la nga am la nga mën defal dëgg la def dara rek defal yàlla dara si alxuraan tiitaru kooku sax baax na waaye waxuñ façon boobu ay dig taxaw naan danaa si joxe nangam waxuñ loolu boo déggee yàlla ne sirran wa alaaniya mooy nga bàyyi ba ñëpp toog mi ngi nii nga ñëw taxaw fii daal di tiitaru xëccaat sa garaam boobu daan ne enveloppe bi 10 millions la maa ko def si daara ji sëriñ Afe waaw kay kooku mooy wa alaaniyatan yàlla ne ne boobu bëgg naa ko lool wa alaaniyatan defal ma si daara tiitaroo ko taxaw fii xuggali ko maanaam génne enveloppe 10 millions ne ko defal ma ko si daara ji waaw kay kooku mooy wa alaaniyatan boobu baax na sirran nag mooy nga bàyyi ba guddi nga daal sa oto ndànk fekk ko si daara ji gannaaw gee mu toog maanaam di waajal naafile nga nuyu ko ndànk ah non indiwoon sama addee sa daara ji rek jox ko ndànk la nga koy jox mu ñaar la nga génn ndànk dem nga génn dem mu xool ko maanaam muy 5 millions. waaw kay boobu baax na boobu mooy sirlam kon ñaar yooyu bu ñu leen boole woon rek daara jag waaye ku bari mi ngi denc defulul daara waaye ay bu sukkalaat teewee mu commencé rëcc ndeysaan bi may ñëw léegi maa ngi ànd ak borom xaalis ku bëri xaalis dafa feebar ndeysaan bi ñëw Dakar di faj si waaye xaw lu muy xalaat gis naa ko mën a tekki rek jaaxle lool waaye ba soogee dama ay xalaat sama compte yéen sama ko ñaar nàkk ñii rek ma nar a dem nii rek bàyyi sama compte banque yi sama biens yi sama nangam ak nangam yi ndeysaan lu bëri loolu dana leen dal ñëw bay sukkuraat di xalaat naan su ma yëgoon xool rek suñu affaire daara bi ni mu si yàggee woote ni mu yàgg wax lépp maanaam su ma yëgoon maanaam tabax daara ja kon tey su ma deewee nii maanaam tiyaaba ja fekk ma fa waaye maa ngi nii dee maanaam li ma denc mosuma tabax di réccu rek di réccu rek la daloon sama mbokk ma muy bëgg a faatu ndeysaan sama mbokk ma jege la ba ma woowee ma dem fekk ko muy bëgg a faatu ma ñëw muy xalangu di yuuxoo ko wax ma ne sama xel ndeysaan ay waay yi ngay wax ak a neexoon ba nga dee ba nga amee wér nekkoon sa kattan ak a neexoon nga doon wax yii nga dundoon yii ma ngay wax rek yàlla nangam yàlla nangam ma ne ah sukkaraat say métti rek sukkaraat say métti rek waaye li la wax na ko ndeysaan fekk lépp sukkaraat say métti rek ba muy dund talut yooyu sax talut sax affaire yàlla loo ko mas a wax si lu baax faale woo ko dimbalewul kenn dem bay dee nag bëgg ñoo rey ak yàlla dem déedéet fumb du maanaam di yóbbu yenn saa yi mu yóbbu xëcc sama mbokk xëcc sama yére bi maanaam wiñaaru daan ne ma nañ ma war sama docteur bi nañ ma war sama docteur bi ma ne ah waxee da man laa xel la yàlla waxoon de mi ngi nii bu fi ñu tollee daan nañ ma war sama docteur war ma sëriñ bi dama ñaanal waaye wa zanna annahu al-firaq yàlla nee naa moo ko gën a wóor ne docteur yi mënu si dara dee rek dee rek dara la si docteur yi mënul dee rek wa zanna annahu al-firaq jékki-jékki wiñaaru boole ñaari tànk yi maanaam tippal ñu ko ba sama yére bi ma xottiwaale ko yére bi mu tëppoon wala tappati saako bi saako day dee moo métti day métti jékki-jékki xulli ba di nag image yi di romb fa kashafnaa anka xitaa'aka fa basaruka al yawma hadiid image yi di romb nag muy xool yu baax yeeg yu bon yi yenn saa yi am lu romb di lu bon nga gis mu futtu lu ñaaw la fekk di romb ko naqari ñi toog dañu yaakaar ne méttit la fekk déedéet du méttit de yi muy gis te mënu ko wax dañ nañ gémmiñ gi lam fenoon lam sàccoon lam jëwoon lam rambaajoon lam njaaloo woon di romb nag muy gis mu naqari ko trop yenn saa yi mu romb mu gis maanaam bis mu sañse ba jekk ñëw si bisu sëriñ Afia loolu romb nga gis maanaam war a dal na tekk yaram bi dal fekk xol bee set ndax gis na lu ko neex lu mu bëgg gis ndeysaan mu ngi xalaat bis suñu ànd ba xoolal rek keroog ba ma fa demee de fukki junne laa ko jox cinquante mille pourtant boobu mën na maa joxe un million su ma yëgoon joxe un million xool bi may gis nii image yi nii su ma yëgoon boobu joxe un million ndeysaan di xalaat di rëcc ndeysaan fekk boobu maanaam dee agsi la day mujj rek takat koo mën a doon soo dundoon lu baax ba dee tamit réccu rek maa ko fekkee ndaw mel ni man la ñuy waxal ndar fa ma nekk ñuy suul ab néew ñu ñëpp ñu dikk ak si biñ suulee ba pare ñuy génn ñun mbooloo mi armeel yi ma jillanteeg ñaari waay sama kanam ñu nekk sama kanam kenn ki daal di wokk morom ji ah naka waaye saa waay na nga def waay naka naka sedd ndar bi ma ne laa ilaha illallah ñi de yëguñ yëguñu ki ñu doon suul léegi xam nga kii de tërul moom seetlu naa xoole kii ñu nekk suuf jaar ko ba mu fees génn guñ sax armée yi si biir armée yi nga ne ko naka seetlu nar bi mel ni dañoo wax ak man ne ma ah Cheikh Bamba góorgóorlu de gis nga mbir yaa ngi nii de nit ñi de ko dee si saas lan lay fàtte. xam nga kee day lu mu fa lu defutoon du ko fekk ñii di wax daal ne seetlu nar bi tooy duñ ko day sax moo tax nit war a góorgóorlu war a bàyyi xel lu bari fañ lay bàyyi ñoom dem. nes tuuti Serigne Touba nee na nga dekki fekk pax ma xatoon lool ndax wetu lay joon lan la tëral lay jëmale la penk jéng bu ñu dee suul boo ko fekkee dañ koy wax defal li ginnaaw gi na baax na sës na jekk fexe ba doo dippati ñu kumaanaa looy def dekki yaakaar ne yaa ngi àdduna maanaam bëgg nooyi rek suuf si commencé dugg si gémmiñ gi commencé dugg si bakkan yi ndax léegi am nga air bakkan yi day jël suuf nga commencé yuuxu li daal la maanaam kenn du la dégg yow rek sa biir fan bi ñu bari di jàpp nañ ni yooyu ay caaxaan la ndax ba ñuy suul diw fan doon gas dañ faa dencoon nit te bañ dikkee gas nañ fekkuñ fa dara kon suuf lekk na ko ba yàlla kon léegi nit suuf dafay lekk nit nit di dekk maanaam jeex na jeexam noonu lañ ko yaakaare fekk nit ñi xamuñ ni kullu shay'in yaawdu ila aslihi sa jëmm ji moom suuf la soo deewee buñ la suuwee suulee bu neexee yàlla suuf si mën naa lekk sa jëmm ji waaye ruu moom ruu gi suuf si du ko lekk te ruu nag leer la gis nga fi mu toll nii bas bii boo fi monté woon junniy lamp leeru benn lamp du seene maanaam leeru moromam est-ce que dégg nga li ma wax bas bi boo fi woon junniy lamp taal ko junni yëppay tàkk ndax leer du jël espace benn leer du seene sa morom leer yëppay duggante maanaam ruu si bàmmeel noonu la mel nit buñ ko suulee ruuga moo fay des même buñ fa tegalawaatoon keneen dafay mën a nekk ndax ruugaa fay nekk maanaam te ruu ak leer la bàmmeel mën a jël ay nit ñu bari ñu leen di mbugal maanaam nga naan nekkatuñ fi maanaam suuf sa lekk na leen fekk ña ñoom ña ngay yóoxu jéppile jéppi goo xam ne suñ ma woon a jóg fekk la foofu maanaam da nga ko rëcc kon nañu góorgóorluwaat nañu dellu si daara te dellu si alxuraan guddal naa te ñu war a jël kàddu bari nañ lu si leer yàlla lu si lëndëm lu si njuumte si ñun la ngeen baal ñu ko yàlla nañ ko daje déwén yu bari yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar guddal fan yi tamay ñu wér ah yar la war nag teggin ak yarub diine kon dañ koy jeexale ñaari biir yu gàtt yu sëriñ Mbay Jaxate waxee woon yoxoon dafa waxoon ni moom sëriñ Mbay Jaxate ku yaru rek a mat a am ku yaru rek a mat a am ku yaru rek a mat a xam ku yaruwul matul la am matul la xam turam wa sax yar li tax amul moroom day tax a gën fa say moroom day tax a gën fa sa boroom ku la yarul rek a la nax ki la yarul kookoy ka la nax wasalaamaaleykum wa rahmatullah
waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Ahmed Bamba Sylla jërëjëf. jazakallahu xayran